أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبكي جلد يدك سنغال أكفد السنغال وهي fudul غنيه te dañu bokk réew mi di Sénégal li nit di yëg ci lu mel ne lii may bëgg a wax ak yéen yéen a koy jëkk a yëg mu soog a tas ci àdduna bi ñu ngi nuyu itam waa diaspora bi ak képp kuy nit rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni ci nit ak jinne wax na ko ci alquran répété ko répétition yu bare bari dafa mel ne dafa am kàddu goo xam ne dafa jib xaw a jeexital ci xolu ñu bari ci suñu mbokk jullit yi wallaay ak ñi dul julli sax te sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam cër bi ko yàlla jox yonent bi yàlla won ko ne ko yàgg sa mbokk yi la fi jiitu yéen a bokk lépp doon tale yaay seen sang nag ñu tudda leen ulul azmi min ar-rusul sayiduna nuux sayiduna ibrahimu sayiduna muusa sayiduna isa sayiduna muhammadun alayhim salaatu wassalaam am wax boo xam ne nag la koo ko wax dafa yëngal xolu ñu bari mu tiis ci ñoom metti ci ñoom ndax ka ñu wax wax ji jaare ko ci ay wayjuram mooy sangu àdduna ak àllaaxira tabaarakallahu may yëkkati sama kàddu nag jarul sax may wax sama tur waaye rek di leen xamal ne njumte amna ci kaddu njumte lu re yonent bi sax ci bopam sallallahu alayhi wa sallam mom tontu na wax ju jek ci ci dundam سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا نيو فك يونت بي صلى الله عليه وسلم تيغ ليريا مباخغ دالغ تيغن ياغا خامن يالا كوكو فاسوني yemu ca kenn cofeel ka tax mu ñëw ba ba daanaka jege ko lool ne ko la anta ya rasulallah waat naa la mu xasam la maa ngi waat ci màggu yàlla ne yow rasulullah mi mu yaay ndawal yàlla mi mu yónni yaa ma gënal sama ñaari wayjur ñoom laa gën a sopp ci yow yow laa gën a sopp ci samay soxna yow laa gën a sopp ci samay doom ak samay njaboot yow laa gën a sopp ci sama mbokk yu baax yi ma yàlla booleel ñu bokk ñëw ci sa keppaar bokk wommatu nangu woote yàlla bi nga xam ne jaareel na ko ci yow ah xanaa bo xanaa de sama sama bopp rek laa gis ne de moom la gënal illa nafsi lati illa min nafsi lati bayna jambaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko سجم مطل فيك جنو مالا سبب يو ميو بانا بغتو دلينغ تو دلب تبارينو تنيب يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من والدي ومن أولادي ومن أزواجي إلا من نفس التي ومن إخواني إلا من نفس التي بين جنبي فأقال له الرسول صلى الله عليه وسلم موجها ومرشدا حتى أكون أحب إليك من نفسك مدالي ديال الوال delluwaat يعني yonent bi بولي ko ne boole ci sa bopp feeg dugaloo sa bopp gëmagoo لكن الصب تمالي تمالي ويجور يوم يا ملين غنا يا يو لكن الصب وش يوم سماي سخنة سماي دوم من عمر بن الخطاب سماي بوك ييغا خامني ño bokk nek ci sa képpar yàlla baax ñu yàlla baax ñu dugal ñëpp ak ngëm ci suñu xol ñu ñëw tudd ne groupe ci sa kanam tudd ay baatu seede yi nga nangul ñu ko léegi nag itam yaa ma gënal itam sama bopp yaa ma gënal sama bopp ndax danga ne ma kat xatta akuna ahabu ilayka min nafsi te man dama newoon illa min nafsi lati bayna jambaya kon boog jëm naa ba sës mu ne ko al ana loxo bi téye ko ne ko al ana ya rasul ya umaru al ñu téye bàyyi loxo ba loolu nag kon du du mën a yaatu genn yaatu gi waaye daal ñi nga xam ne yépp wone nañu seenu mettitlu ci mbir mi nga xam ne xew na ak naqar guñ ci am eh, bëgg naa ci bëgg naa ci waaye mbëgg gi ma ci mbëggit bokk na ci la ko yokk moo di kenn ci ñuy wax nekkul ku agressif ci say wax wadde nga wax ji lal ak yar ak teggin waaye te muy lu réy nag tabarakallahu maa ngi ci déglu kàddu gu rafet goo xam ne sama doomu bàyyi di sama rak may mbokkam ci wàll yëpp di magam muy alxaaji mohamadul amin sàll bu cheikh alxaaji abbas sàll bu luga dalika dalika al arifu billah di sama soppe maa ngi nuyu ci nuyu gi ma ko nuyu maa ngi nuyu sama doomu baay sama mbokk di kilifaam di kilif alxaj Mouhamadou Lamine di kilif Cheikh Abdallah ak Cheikh Cherif Sall ak mbokk yooyu nga xam ne ñoo bokk baay di sopp di soppe maa ngi nuyu xalifa Cheikh alxaj Abbas Sall di sama mbokk di sama soppe di Cheikh alxaji Mouhamadul Mansour Sall mooy xalifa Cheikh alxaj Abbas Sall qaddasa allahu ruuxahu léegi nag xanaa sant yàlla bi nga xamee ne ah ñëpp am nañu luñ ci war a taxawe maa ngi dégg Lamine di wax ne maa ngi woote benn daje boo xam ne daayira yi dañ koy def comme lu ñuy lu ñuy rubburdatu ba dootoon ma deex nañ koy jàng ñu ñëw daal daje gannaaw suba walla xaw ma sax suba la suba ci alxames ci kenn ku nekk soo ñëw indi lu mu néew néew ñaari baytu ba ñeent ñaari baytu ba ñeent ci yi nga xam ne dañ ko tagg yonent bi ba nga gën a xam ci bu rafet rek indi ko kenn ku nekk wax la nga indi muy loo xam ne beneen njukkal la boo xam ne dañ koy yëkkatiwaat ak yeesal ak suñu njaam yeesal suñu jaayante ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dox ànd ak moom jëm fi yàlla ndax kat yàlla nee na yonent bi di sama soppe ma yónni ko mu tëj buntu nu bu watu moo leen gën a yey ci seen jëmm gën leen yey ci seen bopp bismillahi rahmaan rahim annabiu annabiu wala annabiu awlee bil muminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum loolu yàlla ko wa ulul arxami baaduhum awlaa bi baad bi la su ko defee kon ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ñu jàmm ci réew mi dolli fi dal dolli fi juboo dolli fi xéewal dolli fi sutura mbas mi nga xam ne ñëpp a ngi ci jaaxal ci àdduna bi la na lépp jaaxal na ñëpp eh, yàlla na ko yàlla teggi teggil ko umma bi yëpp te ñëpp ay jàmm yàlla lañu ñaa ñëpp ci xeetu sayyidina Muhammad dafa am rek lu ñuy wax ummatul ijabati wa ummatul daawa ummatul daawa bi moom ñëpp ci dugg ba ci nekk ci nekk ci yeneen diine sax ci la ñu nga ca biir waaye ummatul ijabati nag yàlla defal nañu tawfiq ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañu dañu nangu nekk ay jullit yal na yàlla nangul ñu suñu ngëm sellal ñu ko bu baax a baax te dox suñu digganteeg bokkaale yal nañu yàlla musal ci bokkaale yal nañu yàlla musal ci bokkaale su ko defee itam nag ngi ñaa ngi ñu ngi ñaa ñu ngi ñu ngi rafet njortu ci ne xëy na mos mbokk mu def tudd Moustapha jaxate mën na am mu wax man yaakaar naa ne li ma li ma li ma li nemmeeku ci ay waxam ci wax bu rafet ci xam àdduna lii njuumtal la rek loolu laa jàpp lii loolu laa jopp loolu laa jàpp te itam yàlla dafa ne آه، الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ونحن نخشى العنة من الله ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصفروا خير لكم يعني نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن سوغن باني موغ بغنا داغن ماي فايول تي ناغن كو ييغي سي سين خول تي لوما لال ولا لو لال سام بن بنت دا ديس لول تي يين مون بوك لا ساكو Eh, yaakaar naa ne nag lépp dana mujj ne ci sedd lay mujj rek ndax réew mi réewu jàmm la surtout fii ñu toll ci réew mi ak ay ci àdduna bi mbas mi yi ko yi ko yi ko sabab bari na bari na du ma dugg ci ay détail waxtu wu nekk ñu ngi déglu kàddu kilifa yi Sidi Aboubacar Mouhamadul Mansour al Khalifa ngi dénkaane ay ñaan ngi dénkaane ci ay sarax dañuy jox ñaan ya di digle sarax ya te kenn kenn jiitu ko ci kon boog nañ topp ci moom rek Cheikh Seyd Mouhamadul Muntaqa Mbàkke ci Touba di xaritu xalifa bi di doomu baayam di soppeem seen ñaari wayjur nekkoon benn jëmm suñu wayjur te doo Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke ak Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu benn jëmm lañu woon duñu ñaar ñom ñu ñëw tay wëyel loolu diko doxal ma ngi ku nelawu sama bay serigne Bachiru mbacke ki ma ko njëkk wax ci Tunisie mu dugg sama nopp ci aéroport moo di xalifa bii tey sëriñ Babacar Mansour fekk góor gi dem Tunisie buur gi ba invité ko fa ak bay Niass Cheikhul Islam Cheikh Alhaaj Ibrahima Niass ak sëriñ Mouhamadul Habib ñu ñëw ba aéroport mu jël sama ma ma jóge Kër mu ne ma dafa am kon lu xew góor gi dafa ne woon góor gi baat dafa bëggoon mu def xëy na fukki fan jëm ñaari semaine waaye dañu yegg si rek bërki démb ñu wax ko ne ko Cheikh Seyd Mouhamadul Bachir Mbacké qaddasallahu ruuxahu dafa noppal wàccub liggéey góor gi daal di na yónnee ci buur ci buur gi baat ne daf ko bëgg a gis dafa ne ko na ko may fii ak ñaari fan ndax dafa ne kii xat-xat waaye da bëgg su ko gisee naka kat gan gi kër neex na sant na la amna fi ñetti fan bi mo ñent juroom juróomeel fan wala juroom ben fan damay fas damay fas delu wat nonu leen jëlé avion jaar Paris def escale jël correspondance en 1966 ci bal ci Sénégal mbokk yi lolu mo doon kaddu yi ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di balu haq ñep hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh